ñu woo responsable marché Ocass ak responsable transporteur yi ñu toogoon ngir waxtaan ci lii xew tey ci dëkk bi muy cas bii nga xam ne dañ ko am te mu nekk cas communautaire ndax fii Touba ba ñu tàmbalee ba léegi cas yi ñu am cas importé la tàmbalee cas importé boobu am ñu mu wàll nga xam ne ñooñ ñëpp xamoon nañ leen mais bii cas nag dafa nekk kaa bu xawa Euh, particulier maanaam boo xam ne dafa am wuute gu mu wuute ak li njëkkoon gis ci xeex bi ba taxoon mu jar ñu ñëw toog woo acteurs yëpp maanaam ñi séq mbir mi yëpp ñu toog waxtaanaat ci nu ñuy gën a taxawoo xeex bi gën a fexe ba lii du wasaaroo ci dëkk bi ndax kaa boo xam ne commerçant la di jaayee marché Ocass te moom bi mu feebaree xamul fu mu jëlee feebar bi ñun itam suñuy gëstu xamuñu fan la ko jëlee loolu kaa communautaire la te kaa communautaire ku nekk xam na ne kaala euh, boo xam ne mën na am wàll na ay nit yoo xam ne gisaguñ leen ba tax ñu toogoon ne fokk ñu waxtaan ci wàllu marché occas bi ak wàllu transport yi nga xam ne mooy yóbbu nit ñi marché occas nag jafe-jafe bi am ci liggéey bi fii ci Touba li ci ëpp ni marché bi tëdde la du ma ne sax ñi nekk ci marché bi la parce que ñi nekk ci marché bi dañuy daan seen doole njariñ moo leen fa yóbbu lu ñu fay wut te loo xam ne la nangul nañ leen ko waaye liñ mënta nangu nag mooy comportement yi nga xam ne ñu ngi ko fay gis ndax tey jii soo demee ci marché bi day mel ne ñoom yëguñ ne du mën a ñëpp mais bëri na ci ñoo xam ne dangay ngay jàpp ne sax yëguñ ne feebar bi mu ngi ci dëkk bi te boobu ba léegi ñu ngi ciy wax ba tax nag gouverneur woote ngir ñu waxtaan ci loolu xool nu ñuy jëlee ay tëralin ak ay mesure yoo xam ne su ci ñëpp jaare wàllu feebar bii dina mën a dakk ci biir euh, Touba kon ñu woowoon transporteurs yi woo responsable marché bi am nag ay mesures yoo xam ne gouverneur dina ci ñëw wax leen nan la loolu tëddee waaye daal ñun dañuy rafetlu woote bii nga xam ne bi ñu waxtaanee ak kilifa bi muy gouverneur ci saa si daf ne day jóge Jurbel ñëw tuubaa ndax lii jar na ko ñu ci koy rafetlu ndax Euh, kilifa la mënoon na yebal te it euh, su instruire ron xëy na kenn ci ñi fi nekk dinañ def liggéey bi waaye moom xam enjeu yi ak xam ni mbir mi tëdde moo tax mu ñëw tey bésu samedi woo kilifay région bi yëpp ñu ñëw toog fii ngir waxtaane loolu kon jël na ci ay dogal yu am solo ñuy ñaax nit ñi ak ñaan leen dogal yi nga xam ne gouverneur dina ko leeral te muy loo xam ne jubluwuñ ci lu dul fexe aar dëkk bi ñu ñaan nit ñi ñu fexe tënku ci loolu ndax kat li ñu tàmbalee woon demoon na bay bëgg a jeex waaye bi lii amee dafa mel ne dañuy tàmbaliwaat te tàmbaliwaat bi ñuy tàmbali day wuute ak njëlbeen gi ñu tàmbali woon nga xam ne demoon nañ ba wàllu feebar bi di jeex Touba waaye waxoon nañ nit ñi ne mën na am mu dugg Touba tànk nit ñi bàyyiwuñu lii nga xam ne mooy tere yi nga xam ne tere nañu kon tey jii ñëwaat na Touba te ni mu ñëwee nag dafa mbubboo lu ñuy wax cas communautaire mooy kaa boo xam ne daanaka soo ko saytoo moom ci boppam sax xamul fu mu jëlee feebar bi te ñun ñi koy faj itam gëstu nañ xamuñu fan la ko jëlee kon ñu njort ne moom am na ñeneen ñu mu wàll ñoo xam ne tey jii suñu pas-pas yëpp ak suñu yitte mooy fexe ba xam ñooñu mu wàll ñan ak ñan la ñi nga xam ne ñoom la dëkkal te ñu xam leen. ak ñi mu saafonteel te ñu xam leen am na ay dogal yoo xam ne kilifa gi jël na ko te dinañ ci jaar ngir aar dëkk bi benn souci rek la am maanaam benn mébét rek la ñu am mooy taxawu dëkk bi ba feebar bi du fi law taxawu dëkk bi ba feebar bi du fi lor kenn taxawu dëkk bi ba jëlee fi feebar bi loolu nag ñun rek tuuti nañ ci ñun rek mënuñu ko foog ñëpp ànd jàpp ci ñu boole suñu doole génne feebar bi dëkk bi ndax kat dañu gis ci marché Ocass ay comportement maanaam ay jëf ak ay nekkin yoo xam ne su dee wéy na feebar bi du fi teel a jóge te gis nañ ne Touba lu ñu mën a def ci ay effort ak lu ñu mën a aar dëkk bi su fekkee loolu mu ngay wéy feebar bi foofu bunt lay doon pour dugg ci biir askan ngeen si biir réew mi wala si bitim réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a xam ne nga xam